fi mu Sénégal waxatuñu waxu selbe nom de ak ñeneen ñi temps yi mom Kounkandé moy révélation bi mom la ñëpp di waxtaane ci réew mi bés bu nekk ak li ci xew waaw révélation la de ndax bu mu duggee ci langum charlatanisme gi yàggul dara daawoon nañu ko dégg sax jamono yee muy def ay pronostics ci combat de lutte comme ay moroomam waaye dafa mel ni il s'est vraiment démarqué avec cette histoire de xar géej gi comme ni mu ko jour tam xarit géej gi nag danaa ko xar dana ko xar juróom-ñaari mbedd la koy def. allahu akbar kon gaay yi nañ préparé te xam kon ku bëgg dem bitim rew man nga waajal ndax kan da koy xar. gis nga geej gi gis na boy Idrissa ndjay mom xamal mom tay moy li lay faral di wax bi ma ñëwee Gambie maa ngi ko doon wër. ay dama la bëgg woon ne man gëna yoy tay ay Moustapha Dra Idrissa ndjay ay Benjamin bu si ñeme rek ba su tam xarit ñoo nga doy man fi xana ndax loolu la sénégalais yi doon xaar pour jox ko bop waye tamit def ko sujet bu croustillant ndax fi mu nekk ni mom lañuy ñuy waxtaanee fépp ci réseaux sociaux yi.

no Amadou Diallo la tudd ndreñ la ndreñ papam waa Guinée la nekkoon ancien militaire yaa ngi dégg maamam moo dëkkoon fee Colobane am sama boy la sama boy la woon mbokk suñu fils la ñun ñoo ko dugal ci sécurité en 2014 yóbbu ko ci Pape Diop ñoo ko formé jàngal ko lu bëri ci Sénégal nak dafa melni ni charlatanisme business bu florissant la fi ndax même bu fekké ni yàgg na ci réew mi gis nañ ni ces dernières années mi ngi pousser comme des champignons. yéré yéré yéré yéré ligéyu kay la yéré cosaan la des fois suñuy génn dañ koy sol. nuy njëriñam. njëriñam tamit bokku na ci lu nga xamni day ar njëriñam bokku na tamit ñi nga xamni mom lañuy la tamit ñi nga xamni ni pour xëcc leen dañuy ñëw. ñan.

décidément nak Sénégal réewu délire la ci boo jógee rek dal ci beneen te dafa mel ni sax loolu moo gën soxal askan bi que les vraies questions du pays sénégalais yi ci phénomène yu mel nii la et pour un rien de temps ñu rendre que viral xanaa loolu moo tax ba ñenn ci presse bi rawatina site en ligne comprendre besoin et di leen ko servir pour y rek seeni vue waaye de loolu deful rek lu dul gën a abrutir public bi ndax bu ñu waxantee rek information bi ñu di imposer rek consommer à nous de choisir nak ndax dañu leen di servir lu sérieux wala rek le contraire ñun nak li ñu le mooy comment on peut mettre de côté les vrais problèmes problèmes du pays di fësal yoo xamante ni daanaka amul benn valeur informative pendant que variant delta bi di lëmbee àdduna fii ci Sénégal moom ñuy floré troisième vague corona ndax multiplication bi nga xamante ni cas yi mi ngi koy multiplier wu waaye askan bi moom kunkande ak i déliram la ñu choisir teg à la une dëgg-dëgg réew mi stress du leen rey lii lañ leen indiloon ci xibaaru bés bi fii ci Totem Actu wooy leen rek di ñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu waaye tam ci suñu site internet www.toutestmature.com. vidéo bi thiaogi.com moo leen ko may di site e-commerce bu ñëk ci Afrique ñu jagleel ko lépp lu jëm ci walum vente produits élevage ak agrobusiness ngeen mën ko jot ci 78 130 61 61 wala ci contact email bi di thiaogisn gmail.com.